incha allah damaa waxoon démb ba damay demee police ba ñuy génn la ma waxoon ba may génn ne woon naa ne incha allah ajuma bii ñëw du teree danañ julli yi na ma ko waxee woon ni noonu mooy amee kenn mënu maa téere julli yi kenn mënu ñoo téere julli yi bañ naa sax ba am na loo xam ne waxoon naa ko te loolu maa ngi ciy dellu nee naa leen aju neen jënd naa mbàjj sax ngir lan ëllëg bu ma jullee ba ñu ma pour fanaane ci kaso ndax man jaral na ma ko lislaam ëppal na ma ko li nga xam ne moo am ba des moo di ne réew mi ci boppam réewum lislaam la réew mi ci boppam réew la moo xam ne ñoo ko bokk réew na bu ko ñëpp bokkee dañoo won dañ ko war a mën a bokk te ñu tëral réew mi ci sart tëral réew mi ci yoon te bay yéen yi nga xam ne moom la nit ñi dox di wax di pelem pelem yi man am na ñu wax ne jox nañu ma dix million loolu dara moo ci amut suñ ma joxoon dix millions it ku ko andi boo jaayee sa yaay it soo ma joxee dix millions yaa nga jaay sa yaay danaa ko lekk tudd tere li ma bëgg a def danaa ko def dem soo na yàlla képp koo xam ne jullit nga képp koo xam ne sénégalais nga wala koo xam ne yaa ngi nekk mbiti réew te xam ne jullit nga sa xel na dal la ma mébatoon wax ko duma ci dellu gannaaw mukk am en arrière ndax wax waxet baaxut te kilifa lépp loo xam ne wax na ko loola na façon ay na def ko loolu laay xamal àdduna bi yëpp di ko xamal samay bokk lépp li ma bëgg nag samay bokk nañ àndoo te bennoo te takka boole suñu loxo xàccandoor dóorandoor te it ku ci dégg wax na nga utiliser sa xel te bañ a utiliser utiliser sa xol mhm. xel mooy nit xel lañuy jégloo waaye xol dafay indi mer te mer amul benn njëriñ comme que andi nañ ànd nañ ci yàlla ànd ci yonent bi samay bokk ngir maa ngi li ñaan yéen ñëpp ñu bokk